asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu euh, man la Abdou Lahad Guèye bokk ci jeune opposant yu département bu Mbacké commune bu Touba. tey nag euh, ñu am ndigal loo xam ne si le khalife général des Mourides moo ko joxe jëmee ko ci askanu Touba ak askanu Sénégal bi nga xam ne ñu ngi jëm ci événement bi ñu naan màggalu Touba. te ku ne màggalu Touba ne mbooloo mu am tamit benn pandémie boo xam ne si am na ci monde bi. te def ay ravage yu am solo yu doy waar yoo xam ne si am na ci monde bi donc ñu ñëw nag di xeex maladie boobu donc sëriñ bi digle ne nañu takk ay masque ci màggal gi moo tax ñun jeune opposant yi ñu ànd booloo doon benn am benn concept boo xam si dañ koy lancé ngir xeex li nga xam ne mooy jàngoro ji ci màggal bi pour que màggal Touba bi am zéro cas concept mooy takk sa masque teeru sa gan donc tey takk sa masque teeru sa gan ci la xëy tey ngir wër li nga xam ne mooy garage yi marché yi lieu yi nga xam ne mooy lieu yi nit ñi di daje pour wax leen ne leen ndigal kat dafa jóg jógee ci xale général des mourides pour que képp koo xam ne si yaa ngi ci dëkk bi wala ku war a màggal si nga takk masque donc loolu mooy concept bi nga xam ne moom la ñu tey vraiment ñuy rafetlu nag euh, ànd bi nga xam ne jeunes yi ànd nañ ko euh, jëm ci liggéey bi ngir fexe ba magal Touba ren am zéro euh, am zéro cas ci li nga xam ne mooy Covid bi ñu ngi ñaanal xalifa bi sunu borom taxawu ko ba magal gi mu am ci ndam lu kawe njortam donc ñoo ngi leen di nuyu bu baax di waaw masques yi biñ ko évaluer toll na ci 2000 masques yoo xam si jeunes opposants yi collecté nañ ko nag euh, pour euh, xeex li nga xam ne mooy maladie bi. départ bi fii la ci ancien garage bi donc war nañu def euh, jumaa ji war nañu def marché Ocass war nañu def tamit Daaru Xuddoos war nañu def tam ak si kër ñang bi ak garage Daaru Moussi yooyu lañ ciblé pour def waxtaan ak nit ñi xamal leen ndigal la bu lu jógee ci sëriñ bi waa dafa dañuy def benn caravane ànd ak sunu. Euh, naataangooy jeunes yëpp ak euh, sunu yor suñu sonorisation communiquer ak askan wi parce que masque yi bul fàtte ne gan gi màggal si dafa war a fekk nit ki dëkk ci dëkk bi takk maskam kooku da koy motiver gan gi mën a takk maskam donc moo tax ñu euh, bëgg a ànd ak askan wi sensibiliser leen waxtaan ak ñoom pour xamal leen masque yi c'est obligatoire ci màggal gi te comme ñun ay ay jeunes lañ dëkk ci dëkk bi te tout le temps tamit ci ndigalu sëñ bi la ñuy dox moo tax bi sëñ bi lancé loolu rek ñu def ñun droit au but dem ci terrain bi ngir joxe masque yi joxe ko direct. tey ndawi opposition bi yëpp ñoom ñoo fi dajee euh, ci ndigal li nga xam te mooy ndigalu sëriñ Mountakha ndawi ndawi opposition bi nag biñ dajee tim ñu taxawal comme lu mel nii tuddee ko takkal sa masque teeru sa gan yaakaar naa ne noonu lañ tuddee kuréel bi continuer ci boobu ba léegi ñu ju ci liggéey. ñu recruter ay masque yu bare bari ñu ñu ñu recruter ko fas yéene tim jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi ndax nit ki bu fekkee ne tim bu bëggee màggal si buy màggal si dafa war a fekk ñi nga xam ne tey ñooy teertu gan yi wala ñooy dalal gan ñi tim ñu ndigal li nga xam ne moom la sëñ bi joxe ñooñu tim doxe ci ndigal ñu fas yéene doxe ci ndigal ndigal ñu doxe ci ndigal loolu moo tax tey jii tim nag ñu def tey journée bi fas yéene tim séddale ay masque ànd takk euh, teeru gan takkal euh, takkal sa maas ga teer sa gan ñu fas yéene continuer li nga xam ne te moom mooy mooy mooy liggéey bi ànd koog ndawi opposition bépp ndawi opposition bi nag buñ ko dee wax lii rek la ndax ñun ñëpp ñoo bokk département bi te departement bi ginnaaw ñun ñëpp ñoo ko bokk tim ah lii tam dafa nekk loo xam tim jàpp naa ne képp kuy rafetlu tim lii war nga ko mën a rafetlu ndax ñun ñooy xàccandoo ñooy dóorandoo kon lii nag jàpp naa ne kon tey jàpp naa lu am solo la fas yéene nañu commencé daal départ fii ci gare Dakar gare Dakar bi dem ba ci côté jumaa ji ak lieu yi nga xam ne moom la moom la cité pour ñu fas yéene dem ci foofu fas yéene dugg ci askan wi kenn ko ne ñu fas yéene jox la masque misir bi nga xam te misir yi nga xam te moom la ñi nga xam tey ñoom la yàlla dénk réew mi ñu jox leen ko ñu joxe ko sëñ bi tim joxe ci ndigal loolu tim ñu loolu waa opposition bi ñëpp ñoom jàpp naan tey ji ku gis lii rek xam nañu waa opposition bi ñoom ñu ngi ci. suñ jàpp nañ jàppale nañu ci ndax su fekkoon tamit wax dëgg yàlla tamit bu nu ciy jàppal toon tamit tey mën naa am taxawal nii mën nañ ko bañ a taxawal waaye ndaw yi opposition bi ñu fi nekk tamit ñu gëm seen bopp lan ndax li tax ñu gëm seen bopp mooy xër nu ay kilifa ak Masamba ak Mademba ñu ñoo yëkk suñu moyen bopp tey ndaw yi opposition bi fi nekk ñoo yëkkati seen moyen bopp dajale ko xam ne lu ndigalul sëriñ bi la te ñun amuñu kenn ku sëñ Tuubaa te ñi fi ñëw ñëpp tim suñu gàndal moo tax tamit wax dëgg yàlla tamit ñu dajale leen am tamit fas yéene ko def ci bis màggal sëñ Tuubaa gi